باب المريدين فال باي فال باب المريدين فال دفلني مجل شيخ ابراهيم فال مور دجل نار غار ولا dawal ndax le maray gaay wi gaay wi seen pënd seenu ma ko gurit yu mag yooya àndoon ak sëriñ bi ba wey

kuy murid wuyu ko Cheikh Baay Faal ba babul muridina faal Baay Faal ba babul Cheikh Ibra mbooleem ku am lëf ci yoon wi war ko ko gërëme te aw ca mbooram waaxoo waaxu xeñtu ji ko mooy xamsatul wasli baay faal ba mooy xamsatul wasli Cheikh Ibra Faal mooy xamsatul wasli ku Bamba jaare ci moom ku am nga am te ku ñàkkit yow nga am wuti ko Bamba ab dëkk Cheikh Ibra Faal lay yoon wa ca jëm Bamba ab dëkk Cheikh Ibra Faal lay yoon wa ca jëm te dëkk boo jëm te jaaroo yoon wa teggi nga ko mooy dëgg dëggi murit baabul murit diin mooy dëgg dëggi murit saadix ci képp anam te mooy sagub yoon wi taaral yoon wi jàngale ko lampay ki feeñal Sëriñ Tuuba ba teena mu dem yóbbaale lim yor ci xiiwul booba kenn xamu ko lampay ki feeñal Sëriñ Tuuba ba teena mu dem yóbbaale lim yor ci xiiwul booba kenn xamu ko mooy yow moo muus mooy yow moo muus moo yeewu moo muus te mu rëy am xel te xel ma rafet te moo sori gis tëriy bët kenn kenn dëbb ko li mund moo gën a xam sëñ ba ñëpp ba tax mu raw ci topp ko raw ci pas-pas ak bëgg ko faal yaara yub cër yow dama ngay raw faal booba kenn jugagul yaa jëkk a jug jëkk a yëggit ñëpp tegtale ko murit bu mag baa ngi nii baabul muridiina faal murit bu mag baa ngi nii Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal baabul muridiina faal def leen nii ñu magal Cheikh ibrahim Faal murit bu mag baa ngi nii roy teefal murit mi ngi nii lampum ngeneel la bu Seyxi Bamba roy ko daj dëpp gaa ngi nii mburum Seex Bamba dëgg ngi nii galgal na mbër yëpp daan wub lamb yàlla jako mooy mbër mu sàkkaati mbër yoo xam ni kenn yëbu leen ci yitte ak jëf te mbooleen luñ liggéey joxe ko baay faal ya baay faal ya baay faal ya baay faal ya fees dell baatiin wooy fi toyu mel ni sagar tiiwul ñu am fulla xam seen bopp tëdd jikko te boole koog yar ak yi teggin yu kenn amul te moo ko def ci ko gis ci ñoom bëgg ko daa jëf lu kenn jëful doxit fu kenn doxul kenn jëful fu kenn doxul ba am ci sëñ Bamba cër yoo xam ni kenn amu ko kuy waaxu dootu ko jot kuy dawitam du ko jot ku war itam doo ko jot fam nekk kenn jotu ko sëriñ bi moo ko defar bam jag mu denc ci moom mbootam te mbootam ku dul Seex Bamba nag xamu ko Bamba ko ko seete ca mboolem gaaya ko ca kaw te su suufeeti ngir yàlla ko bersange ko moo am lu kenn amul moom wóorul te julliwulit ba noppi gën ñëpp lii xel rekk attiwu ko te teewuloon nag mbiram leer naññ sikk amul bàmbaa ko mbaa yàlla la mu sañ ndokkumee sañu ko Cheikh Ibra Fall yoonam wa aw yoon la yoonam wa aw yoon la te mbooleem ay jëfam di jëfiin te ay waxam di xikam fees dell gëstu ji ko te xeedi ak ñàkk taw feex bi suul ci ku dof ba xëy di diingat mbirum Cheikh Ibra Fall kon jige ko ndax su deelu raw xel nga diingat mbaa nga weddi sikkal mbaaloo xamul ni wérul su muy tuul aleku te yàlla daayaatu man naa may lu nekk laram te def ko muy xaybu tax ñëpp umpule ko Cheikh Bamba nag lum saxal loolay la yàlla saxal Cheikh Bamba nag lum saxal loolay la yàlla saxal Cheikh Bamba nag lum saxal loolay la yàlla saxal te moo saxal nag rawuk Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall kon nangu ko te soob na yàlla di maasam mastaam te doom te doom babul muridin soob na yàlla ni maasam musta am te du am ñi am basiirutu ñëppit loolu xam nañu ko te lépp ak taalu bee mag yitte moo ko ko may ak jëf rëy yett yi moo tax mu raw téye ko ku dee si roy la ci yooyu yett ngir ku ko roy xëy jiitu sag maas ku roy mbooram ñu yàggale ko xan mul sëriñ moor moor xam sa diine xatmul xatmul sëriñ moor moor xam sa diine xatmul xatmul sa bur yàlla nag mu may la ci moom nga roy ko ci taalube akuk dëggu ak jige ko wasali rabbi ala خير الورى وعلى آل الوساب لفاك ويواته قيوكم أسل ربي على خير الورى خير الورى خير الورى وعلى آل الوساب لفاك ويواته man awaat ci mbir mu reey ma jup xalaat bu ko xamul moy mustafa ka Bamba dem ba ko mu dess nit ñepp tiit bañ yoon wi tass mu jekki rek dal di ni jass fob yen ba moom Cheikh Moustapha ka Bamba dem ba ko mu des li lépp déet bañ yoon wi tas mu jëkki rek dal di ni cas yen ba moom Cheikh Moustapha ka Bamba dem ba ko mu des nit ñépp tiit bañ yoon wi tas mu jëkki rek dal di ni cas foob yan ba moom Cheikh Moustapha ku nekk naan naka pexe ngir kan xamoon xëy na texe ci yàlla ñun fuñ koy waxe bu bu kuy Musa am na ci ñu am yeneen xalaat ngir ñàkk a xam Cheikh Moustapha Cheikh juma ni bàyyi ba moo juma lu man di am day fonduma man yi mu naa ci Moustapha ko li nga nar ko xamul yaa songu mbër xanaa yëgoo ñàkk gu tar gi am ci réew mi mustawa am di ni du ngeen ko xam ndax seex bamba lu bëgg mu am jumaa ji moom fokk dana am baru ruugi man Mustafa. Cheikh Moussa daal di taxaw Bamba jëm ca kaw jiital fitam ak xel mu ñëw ba ciy mustawa man demoon bàyyi ko fa ñoo dil siwaat ci musawaa naan ñu ngi tuub yow musawaa ñun seere yaa fi gën cheikh muhammadul musawaa al karim cheikh muhammadul al karim cheikh muhammadul musawaa al karim def nii ñu màggal cheikh muhammadul musawaa Mbakke ñun seere moo bari jom mooy taaw bi taaw ay rakam ku ne mu def la war ca moom ba ñëpp bég ci Moustapha rakam ju nekk wax ngërëm ngërëm lu rëy ci moom lam ko gërëm man naa ni sax koo dem këram fekk fa am Cheikh Moussa Cheikh Moussa gërëmaat may nga ma may ma la waat moo tax ma jóg bi la waat yaa neex a way yow moom dana wéy kenn du ko dabbanaa ko eey te ku du amu ay du mus ni way yow Moustapha manooma mi doon dagaan ngir bëgga doon sa werakaan may nga ma may walangaan cim xel mu sell mustawaa ku war a sant maa ci raw ku war a tagg maa ci raw xaraw leen tane ma way fi man Cheikh mustawaa fu yaa ko waral Cheikh Muhammadul mustawaa fu yoon wi dem yaa ko waral tey lu fi ñor yaa ko ñoral giñ naa man ahma jigal kenn du la dab yow Moussa yaa def la Seex Bamba bëggoon andi ko Tuuba moom la bëggoon jumaa jiit lum wax la woon te yow yaa ko def yow Moustapha jumaa ji moom dañ nga lu ne jumaa ji moom dañ nga lu ne ngir mu taxaw luñ wax nga man nangu naa ay canane yaa bari jom yow Moustapha yow booyamoon ci xëcc raay kenn du la dab banaa la kaay yow mooy moon ci xëcc raay kenn du la dab la kaay yow mooy moon ci xëcc raay kenn du la dab la kaay Cheikh Moussa ku la bañ yàlla na saay man sopp naa la mustawa man sopp gi ma sopp la may na ma man lu kawe dellooti naa santati la big ci yow cheikh mustawa cheikh yaa di kamaal cheikh bambalu ma soo nan naan yaa ko def ku tooñ nga fa yentuwo yow Moussa boo tele woon ci yen bi jumaa ji tey du mel nii boo tele woon ci yen bi le murit gi tey du mel ni le jumaa ji it du mel ni le jaajëf jëf yow Moussa Moussa bari ndam jikko yu sell yuñ gërëm nga jikko woo sa jikko ji Cheikh Moustapha dinaa filim ci ay jikkoom ngir bëgg rekk ñu roy ci moom noppeek goreek ragal boroomam te sax ci jub moom Moustapha ba moom daana wax juba ma doy nit lu mu am lu mu rëy rëy te mank jub day mu jufay maa tànn jub man mustawa moom daana wax àdduna moom ñaara fi am jaamu boroom liggéey ba doo sa moroom maa sant man Cheikh Moustapha moo tabe woon te nit te yaatu woon te teewu ko am fulla kër yónneen ba daal mooy Musawa ki Musawa Aminato ke Musawa Aminato ñoom ñaar ku nekk sa xalifatu ñin fukki at la Musawa Taif gi fi moo nekk wee Madina fi Madina fee ku jóge fii ba ñëw ba fee soo ko gisee ni mustawa diisoo nekkoon di ay mbiram moo tax ba juum nekkul mbiram ngir bu amee ñi ëpp juum naw naa la man Cheikh Moustapha Jurbel la Bamba la mbër yëpp dal jaxasoo keroog la Moustapha fasoo mottuli mbooleem dink ya wam sasin tax na ñëpp tiit wam sasin tax na ñëpp weet Sëriñ Tuubaa demam gi tax na ñëpp tiit budul ko nag moom kii ku fi wuutu kon yol mi dem ca géej déglul ma wax la ak demam ak mag ñette ay mbiram waajal ko def ko ci këram keroog tafaatuñ waxtu ya guddik àllarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci wutam xarit wam sasin tabbi nañ nawet murid yi xuus ca déq ya la xew keroog sa jur belaa la xew keroog sa jur belaa tax na nu fàtte kar balaa ngir kanu daa karal balaa fàddu na tàggoog soppe ya Seexul Xadiim yaakaari jaam ñi borom Tuuba Xadimu Rasuul def leen nii ñu magal Xadimu Rasuul la xew keroog fa jur belaa tax na nu fàtte kar balaa ngir kanu daa karal balaa fadduna tàggoog soppe ya yaari muhammadoom yawoon xajjam ya ñoo ko waajaloon ak dëgëni ma ñëpp miin tànn xiraw na gàdd ya si xëri jëng ma sant Jóob moo leen ñetteel Bàmba ko soob ji rëy na mës la diib ci yàlla gaayu sàmm ya mu xal bu kaawu maa ngi jooy boobee ba tey faf ni wooy demam gi tax na ruuy gooy fuñ dee tiraase xontu ya ñu daldi gaare ab dalaay ca kër ga teg ca joojawaay keroog la am di wutu baayam te moo yabal way gunge bamba ko lu cib jataay dink ko naa ko rikkuwaay bis booba tuuba lalu haay bum teema dem ci njëndi yen ko fa yen bu rëy te diis waral bis bam ni diis cheikh Moustapha dikk ni soos muñ ba defal ko dink ya la daam ajoon ci ak ñëwam Touba mëneefu koo xaram am di defal ko ak bëggam màggal gi loolaa yilla ya keroog la am di Moustapha yabal juróomi góor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel dajul dem nañ lu jiitu yëngu ya sëriñ Basiiru mooy imaam njool soxna Faatima du maam moom lañ yabal mu indi daam Tuuba daa mare ja xët ca àll ya ànd Muhammadul Lamin ak tàndaxi ci woowa sëriñ Mataar si laañ ca woon Cheikh Khary Dieng ca ànd ya buntu ba maam Cheikh Ibra Fall yettoon ca sowu kër ga daal fa la jaar ma ni ko faal yaa yàgg digg junj ya watam sëriñ Balla Bariir dur siise dib suufeer dalaay ba ak ñëwoon ca biir raw nañ te taaluñ làmp ya biléb safoor yëgul tinul murit ya ñoo ko nax xasal mu defe ni ay bagaas la jël xanaa bagaas yi yàlla ya Cheikh Moustapha yónnee fandaam ak cerno ak gede imaam ni leen na ñëpp seeru daam Touba mag ñëpp ñal gu guddi ya Cheikh Abdoulaye Diop taxaw sëñ Maamuram jaxate ñëw ñu àndandoog Cheikh Ibra Ndaw gas kër gu mel ni lëx bi ya Cheikh Mbacke bu jóg taxaw jullee ko sàppe ya selaw te feeña fa jëfi ndaw rëtuñ ba sànk sunna ya ba mu sëlmalee la dal buur wàcc ca pax ma mel ni weer Cheikh Mad Lamine Gaye dem ca biir Cheikh moo dundum dem sang ya yaari moo ma doom yi jël jëmmam ja jox leen ko ñu jël jibbal ko yàlla miy dogal keroog la tàggoog coono ya yaari muhammadoom ya jël jummam jë jox leen ko ñu jël jibbal ko yàlla miy dogal keroog la tàggoog coono ya Cheikh mu dundum be waayi saam moom mujj génn pax manaam jalaal yaramu daam jëwriñ la wóor na donga ya sëriñ bi am na ak bëggam def na ci xol yi gépp gëm dem na ba delsi ci dëkkam di ca àlli kongo ya inna lillahi yoon yoon inna lillahi raajoon bisub keroog ña fekke woon riisoo nañook malaayika ya maam cerno teew na booba bis mësula am ci seeni bis demam ga raw na mépp mbas yëngal na ruuy xëj ya allaaji faddu ngeen ji doom ñëw na te indiwul sagoom bisub keroog mbër yëpp luum la xew xëjul ca bopp ya Cheikh Abdoulaye bawoo fa ndaam murit bu saadix la fa daam Cheikh yëddu jaañ sëñ Moodu laam Cheikh Astou Diouf ca Sappeya Serigne Momar Mbaye Cissé Dias Cheikh Modou Mbaye caloom ni Dias Serigne ma joobum tobbi baas yi mël murit yu dëggu ya Cheikh Baara Sill Baara Faal feggoog murit ya Cerno Faal Muhammadun Saadix Ba Faal ci yàlla gaayu Bamba ya Cheikh Saadix ak Serigne Abbas bu soobee yooye ñëw di raas tey ma ni wëy wëy ma ni baas ahmadu jooy donga ya xanaa ña noon seyxil xadim jurbel la des ñoo gën a juum xanaa ña noon nii te duñ ko miim kuy wax na indi firnde bis bii la indi woote woon te ànd koog ña fi ne woon ca sam sasin la ko sosoon mu gitt bis yu màgg ya Cheikh Mouhamadoul Moustapha màggal gi moo nu ko digal dinu ci ak a digal ngir bëgg noo fegal mbugal bu leen di fàtte digle defin wa jar na fàttale ci alxuraan lay tàmbule bul fàtte nam ko toftale booleeg durus xasiide sëriñ ma sàmba ay sa jeey lay jiitaloo bi lépp liggéey bàcc gomaay ba mës liggéey mooy jekki jiite jukki ya ñanantu kaamilam la saam ci biir bërëb ba nee ma naam koñ bu ne aw nit ni fa keem est-ce ca njàngum donga ya ñu sos fu këpp ñu tas fu këpp yu topp yaar jukki ko jox ko ay xiyaar ñu sax ca mihraab ba di xaar durus ba digg noddu ya ñu dellu tas fukk ak yaar jukki ko séddale kibaar ca biir jumaa ja foofa jaar gis leen te penkuy kano ya yenent koñ foofa dem yenent koñ ya foofa aw teg nañ fa gaayu fa taxaw guddeem ga kenn du ca nelaw foo tollu digg kaddu ya jësbul xuluub muxaddimaat ma waay bu miimiyaat ñi jox ko gaa yi baat ñu géew di jàng tagg ya daarul xudoos fanaane riir jikroog salaatu kenn du ruur fanaane joxe reer njàng ma ànd ak bernde ya yëlay kuréel ña ngay durus yeley kuréel yori kurus am ngeen ni am ni lii mu sos aw na ca sunna ya bu ñu xëyee di ko siyaar mu nuy digal te dinu waar fàttali yoon wa Bàmba jaar ba jiitu gaay yàlla ya te nee na waaju fi fanaan set nga ci bàkkaar ak i daan te loolu nee na moo ko ñaan bam am ca ñaan yu nangu ya te nee na waaju ñàkk paas ba mën na ñëw Tuubaa di taas na jaay mbubbam te wut ca paas ndem am na ñaari mbubb ya te nee na waaju gant tax ba mën la ñëw Tuubaa na dox aw yoonu Tuubaa ba marax mu toog dundal fa guddi ya ku ŋàbbu ëddiyaam di ñëw gis am kemam mënula ñëw na ko ko jox ñu ànd ñëw Cheikh Moustapha nee na saa soxla moo di jëmm ya nee na ña doon gunge si daam min jundin am laakin idaam at mu ne ñëppay ñëw ni këm màggal si ànd ak donga ya te daana digle ñuy bale dëkkam bi buub ko dajale ngir bis bi yàlla day bale